téléspectateurs yi suivre seen site internet mourides point info tey nag euh, ñu ngi ci weeru ramadan mubarak la ñu wax tey nag di juróomi fan ci weeru koor bis bi nga xamante ni si mooy bisub Serigne Souhaïbou Mbacké ñu ngi fii ci nga xamante ni si mooy Madiana Ciss ci kër soxna maam say mi nga xamante ni si mooy doomu Serigne Cheikh say ibnu Serigne Souhaïbou Mbacké di ko màggal fii ci Madiana Ciss tey nag bi ngeen gisee màggal gi nga xamante ni si dara du fi manqué ñoo ngi nii nga xamante ni si ñoo ngi dugg ci biir waañ bi li nga xamante ni si moo am ci biir màggal gi soxna maam say du bàyyi dara noonu ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam Saliou ak Mouride Info indi leen lépp li nga xamante ni si mooy am ci biir màggal yaa ngeen def ba ci kanam Yeah. بيد ndax soxna maam say da kenn ci ñun ku baax barke sëñ Touba dipp bañ ñu dalee ñëw ci màggalam gi ba léegi dafa yàgg te saa ñu ñëwee nii rek lañu koy fekke mu baax yaatu li ñu bëgg ci mbàkke mbàkke mu ne ci moom yal ñu ngi koy ñaanal yal na sut maamam ja aw fan te dese barke bi ci barke sëñ Fallou Ba. Mm, soxna laa tudd. soxna Ndeye xamante ne si yàkkamte woon bis bi mu ñëw ba nu ñëwal kër soxna Mame Say Mbacké. ku dégg ma ne ko yàkkamti woon bis bi egsi ba nu ñëw ci bérébu soxna maam say Mbàkke bi nga xam ne jàmbaari kër sëñ sooyu bu la heure boo xamee ne màggaluk sëñ sooyu bu ñëw na ñun law bay ju bokk kër sëñ Abdou Lahat ak fu lawbe jóge fu ne rek fii ci waañu soxna maam say mbàkke wi la nu yabu ndax dina nu berndeel dina nu jàmmal dina nu may xaalis dina nu itteel dina nu defal lépp ñuy kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla na bis bii lum ci mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp ci barke sëñ yi bu mbàkke mbàkke waaw lu yàgg nag waxe ah xanaa di ko defaral nag ba mu baax rek nag di ko defal yu neex rek xam nga ñun ay lawbe lañ na mënu dara nag barke sëñ Fallou Codou Sow sant Sow. <laughs> encore dañu fekk la fii nga xamante si mooy Madiana Ciss soxna maam say Mbacke gi nga si la juróomi fan ci Ramadan te ku ko dégg nekk xel yëpp dem ci Serigne Souhaïbou Mbacke soxna maam say nekk di doomu Serigne Cheikh say indi Serigne Mbacke naka nga dundee màggal bi màggal li ko dundee xanaa màggal gu neex ñu yàgg ko depuis 2002 ba lañ ko dal di màggal nag ci dellu ginnaaw ci kanam rek bis bu set ñu ciy màggal màggal goo xam ci bernde am suñuy gan soxna maam say nag doon gaynde eh, Serigne Souhaïbou bëgg ay bëgg baayam bëgg sëñ seex say ba jeex tàkk nag waaw képp ku sëñ seex am mu woole la boo jobootee la ko boole benn kër gi yaatal ko yëpp nag ay dooy baayam bëgg ñëpp nag soxna maam say nag màggal gi koo yàgg màggal mu ñor ko lool di feetu bésu maamam gii di ci def lu baax di ci benn ay taalibeem ak ay liyam ay dëkkandooram ak jëppam daa sama digganteeg soxna maam say mooy sama lépp mooy sama njëkkee mooy sama jëkkër moo ma tax a jógee fa ma jógee ñëw sëyi belal gee moom moo ma tax a xam moom màggalu suñu sooy moom ma ko ñamal ñam naa ko dootuma ko bàyyi. waañ bi fii benn ñoo ko seere lépp suñ loxo lañ ko teg ñooy togg lépp ñooy togg tufe togg ay afra togg ceebu jën defal mbaxal def suñu supp benn suñuy gan def ay ginaar ku ñëw daal lépp a baax lii ak suñ lépp macha allah kafe gaa nga fee meew maa nga fee ataaya jaa nga fee ba dara maa ngi ci wut démb lañ ko defal ak nga toy soxna maam see daal ci kaw ca kanam rek waa man Aji Diop laa Aji laa tudd sant jóob mhm. soxna Aji la soxna maam say gii waaw man lu ma ci waay laaj dinaa la ko wax ndax maam say mii soxna nday mbaake da ko jur di sama jigéenu papa soxna nday Mbacke Cheikh Awa Balla jur ko Cheikh Awa Balla maam na jur ko ndax Cheikh Awa Balla ak Modou da Balla ak aw Awa njëkk Awa Balla mayëb Awa Balla Awa Balla kumba ñuul maam jenn warax mbooj baaja nday Mbacke nag dem ci kër sëñ Cheikh say gee moom sëñ son yi bu mee am fa ñaari doomu jigéen tubaarkàlla maasàllaa maam say néewuloon bu ma doon góor mooy jigéen ju mën góor mooy gaynde gi maam say daal li ñu koy ñaanal mooy mu yàgg fi lool balay sa buri sëñ Mbacke maaram ndax moom moo muut bete bete la ndax bàjjen Ndeye Mbacke mi ko jur say xaw bàllaa ko jur sëñ Cheikh say mi ko jur sëñ son yi boo ko jur maam Thierno nag mi maamam bokk ak nag sëñ son yi bu maam Thierno mi maam bokk ak sëñ sëñ Touba benn baay maam Mamar Anta Sali jur leen maam maaram jur leen sëñ Mbacke jur leen maam Mamar Anta Sali mi ci deq la Thierno mi ci béyti wettali ko moo daaw balla taaw ba moo li ko dàq di bete bete ñaari yoon. kii ngi wettali ko baayam bi ci jumaay ji kii wettali ko moo daaw balla taaw ba ca Touba ca Daar Moussi moo daaw balla aw balla ñang aw balla njëkk aw balla mayib aw balla aw balla kumba ñuul maam jenn war xam mbóoj xoolal maam say xoolal ma ko say yàqoo sa kër baay waaw góore waay kontaan naa soxna si de xanaa nuy kontaan ci moom rek soxna Njaay màggal soxna maam say Mbàkke gi maam say. soxna nu dundee moom ànd ak moom ci ngor ak lislaam rek. mu bëgg kër baayam bëgg kër yaayam xamub cëram ñeme ko lool nag dowu ci dara nag doon gaynde néewut bu ma doon góor bàyyiwut góor ak dara nag fi war a taxaw taxaw na fi bu baax dara am jeexut macha allah xar yaa ngi nii ginaar yaa ngi nii. dara jeexu fi benn bi dara manqué wu fi jël nag ñi nga xam ne moom bala waa kër baayam àndal ak waa kër yaayam àndal yëpp mu ànd ak ñoom xëcc leen boole leen ci boppam lu mu am bokk kook ñoom maasàllaa fii la ñuy ne ci waañam bi di ko defaral ba mu baax bu nuy ñibbi tubaarkàlla dañuy defaral ba mu baax ñu di ko ñaanal fan wu gudd wàndeku wér di ko ñaanal nag askan wi mu bokk yàlla bu ko ci kenn raw yàlla na ànd ak ñoom te nu yàgg fi te wér te wér le lu mu mën ren yàlla na mel déwén nu ko ëpp fan wu gudd waa nekk lañ koy ñaanal mbàkke yaaram ndax newut bu ma doon góor